waaw fay naa la fiston am jàmm jàmm ji bari alhamdulilah gis na tey nga ñëw ci làmb ji andi am ci mbégte ak contentement nag namoon naa làmb dèjà gëjoon na lamb ci combat Maodo ak euh, Reug Reug aujourd'hui ñëwaat naa assister au poulain c'est pour l'encourager wan ko ne ñu ñëw nañ taxaw ama droit à l'erreur naa bi ñu nekkeek moom nag entraîné entraîné ak moom pendant deux mois tey day ñëw nag xool si li ko jàngal mu tari ci ko ndam làmb nag dafa victoire am defet ñu ñaan yàlla may ñu victoire. ñëpp ne Pape Ndoye tey dafa war a tey. waaw a tey parce que dañ ko gisee dañ gis ne Pape Ndoye xam am na xale yi maanaam moom euh, il est excité moom bu arbitre siffle rek bëgg ñëw. jëlee fi ñëpp jëlee fi ñëpp. des fois mën na la porter mu bien des fois mu porter la mal mais donc comprendre lañ ko yooyu yëpp teewuñ ko ah demal def li nga bëgg a def mais dans la conscience ak stratégie ak tactique bu baax. demal dóor yi parce que bëree bu amul dóor amul song bëree amatu fa combat bi fi jóge léegi dañoo léewtoo 10 minutes ñu joxoon 4 avertissement ñu bëgg a ñëw léewtoo 10 minutes ñu joxoon 5 avertissement disqualifié leen parce que ñoom ñaar kenn bëriwul ci ñoom ñooñu xale dama leen di sant dama leen di conseillé ne leen bokk maa yéen écurie waaye ña nit la ñu. te laalante wu benn yoon bu bu ngeen pas possible bu zone bi ñu léewtoo sax seen loxo laalante na comprendre. ndax nga bëgg a jógee si kër ñoo bëri ak koo xamante si la laante ñu pare di xataraayu. lu ñu xataraayu laa xamul. père ñu ñu ñu. concert daal pour ñoom mooy la prochaine fois bu ñu ko defati amateurs yi yuuxoo nañ leen te mbër kenn du ko yuuxoo ñu ñëwaatee nañu changé. pour am pour am ndam ñëwaat beneen pour ñu fàtte loolu parce que lii tamit du neex a ñu dellu si ci làmb ñu gis mbëri yi kenn amu ci combat est-ce que yaakaar na Modou Lo Ama bu ñu jëloon lamb chaque fois nag li koy tëj ci souvent rek mooy benn mbër mag am combat day encouragé promoteur yi ci ginnaaw encouragé mbéy yee day mel ni promoteur bi njëkk a tëgg mooy nekk tour ba yéen ngi fàttaliku deux ans ci ginnaaw wala un an ci ginnaaw Balla Gaye Gris Bordeaux boobu ñëpp a ngi di jooy nan combat nangam nangam nangam jëngul boo combat ba taxawee ci la yooyu ubbeeku bari bëri bëri léegi nag lamb ñu ngi toog au mois de décembre bientôt janvier ah bu daa ñu ngi ñaan yàlla nag fii ak janvier suñu grand champion yi suñu doom yi seen i combat taxaw bu seen combat taxaw tamit lamb commencé wul ci ñoom te du jeexe ci ñoom lamb ay rang la ñoom ñu ne ñooy chef ca kaw mais chef boo gis am na ñu topp ñu topp seen ginnaaw dañuy jox seen chance ñoom tamit ubbi leen bunt ci arène bi nañu ubbi leen bunt Modou Lo nañu ubbi leen bunt Balla Gaye ca Calafia ñoom ci Calafia lañ génne ñu dellu si waat yi ñëw ànd style bu bees na grand contre petit est-ce que jaadu na. mais euh, est que mën nga wax kan mooy petit bi fii ci lamb ji. ñan ñooy petit yi. petit yi Ama Baldé. ah non non non. yow ñu ngi non non non taxawal bi ngeen ne Ama Baldé petit maanaam ñu war a fekk si kaw. trio trio booy booy kii Balla Gaye Modou Eumeu Sène Gris Bordeaux Bombardier maanaam ñi leen war a fekk révélation bi war a ñëw fene Ama Baldé ne Boy Niang Sa Thiès Garga Mbossé Gouye Gui ñooñu rek doy ñu war a fekk ci kaw renforcer foofu pour lamb ji mën a tëjee que d'accord nga ci grand compte petit bi loolu moom mos am ci lamb ñu suñuy jamono bi taga témbee mag ñi bëri seen biir ba doyal xamatuñu fuñ jëm fekk ma may génn ma misaal ci yow bi ngay waaj a bàyyi da nga ne booy fi gën a të nañ ma leen jox muy Lac de Guiers ak Balla Gaye maintenant jamono ji may nettali xam naa ne boobu doo si daan lamb ndax maa ngi nettali année 86 87 ba 90 juddoo ma maintenant bi làmb gàlla gose ñu bëri seen biir comme ni xew léegi rek ñi ngeen dox ñoo na ca kaw bëri nañ ba doyal ku ne bëri naa sama ñaar yoon mun ñu fay nekk di répété ñaar yoon ñetti yoon ñeenti dañ cee doyal ci lamb ji doyal ci population bi doyal ci gars yi combat yu bees nañ bëgg te combat yu bees nag bari nañ fi moo tax boo nee grand contre petit loolu dafa automatique. ok ci. yan combat ñoo fi bees sa bari. ñu ngi fi lim mooy Ama Baldé Modou Lo ñëpp bëgg nañ ko Modou Lo Boy Niang ñëpp bëgg nañ ko Ama Baldé Gris Bordeaux ñëpp bëgg nañ ko kon boo dangay xool ne kon Ama Baldé ak mu ak euh, Boy Niang ñoom ñoo fël ci ñëpp am ci ñoom yaakaar ne mën nañoo dugg ci groupe boobu ña ci topp contre ma leen de war nañoo mën a bëre ñooña waaye ñii ñoo gën a yomb ci bëre ñooñu ko ñële ndax dégg ko kenn ku ne Sa Thiès ak Bombardier. muy xale yu Pikine yi. non dégg ko kenn ku ne ca ñooñu ay Garga Mbossé Modou Lo mbaa Garga Mbossé dégguloo ko ñoom xam nañu fan nañu ñan nañoo bëre waatal pour agsi foofu waaw maintenant léegi bu amul mbëri ci kaw bëre ba doyal ba bëggatuñ leen. bu ñu wàccul jox chance ak ubbi làmb bëre ñooñu mooy làmb gi day dee kon boo dangay jàpp ne kon bu làmb dee ñaa bañ a bëre ñii ñii wooye le petits te petit duñ petit kenn petit boo xam ne bu toogee ci balance romb 130 kilos bu siggee taxaw nekk dans les 1 mètre 86 jàpp 1 mètre 90 du petit wu kenn jiitu fi nit ci làmb jee fi ne rek jëkk koo bëre jëkk koo nekk ci koo jàppason waaye ñoom it fa nga jaaroon ba ne fi nga ne fa lañ jaar ba ne kon boog ouvrons les portes la pour pour bonheuru lamb ak bonheuru sport national moo gën ku ne toog di yuuxu lamb yàqu na lamb dee na waja ji waja ja léegi léegi yéen tam site internet yi lu lamb yàq-yàq lu lamb dee dee man mi fi taxaw ak léegi douze sites ñëw nañ ci man wax ak man sama baat baa ngi nii dee na te mënu ma ci ne kenn noonu xam nga kon boog yéen tamit bokk war ngeen bokk ci ñi nga xamante ne dañuy defar pour mu baax ndax su baaxatul kat du ngeen fi ñëwati de. du ma ñëw ba tàggoog yow laajuma la ana Gris Bordeaux. Gris Bordeaux mi ngi fi. mi ngi en train de reprendre ses entraînements comme il le faut mi ngi am yaakaar aussi am combat pour bëri ndax mbër day bëri bu Ama Baldé ñëwee Gris Bordeaux dina moom bu Boy Niang ñëwee Gris Bordeaux dina bëri ak moom bu Lac de Guiers ñëwee Gris Bordeaux dina bëri moom su Bombardier ñëwee Gris Bordeaux dina bëri ak moom su Balla Beye ñëwee Balla Beye le fils de bu ñëwee Gris Bordeaux dina bëri moom kon kan la fi Gris Bordeaux dama gis seen palmarès du nga ci boole Tapha Tapha Tine combat bu jaadu la. Tapha Tine tamit Gris Bordeaux war na bëre moom adversaire bu neex. bu neex mais Tapha man sax. dama tax ñun nit ñi koo fàtte. man man na ma yàlla baal Tapha sax bu déggee lii dama mere ndax xam na ne moom ñëpp la war a bëreel Tapha Tine kullu mbër. moo jëpp adversaire. moo jëpp adversaire mais ko laal. mais kaani gaa tàng. mais est boole booba nag dañ ci boole yu bari yoo xamante ne ba pare nag mu am benn sport bu ñu def boo xamante ne gars yi dañu koy ragal na may mën na may Bombardier revanche mi nekkoon roi des arènes. pourquoi pas Tapha Tine Eumeu Sène. Tapha Tine na bëri Eumeu Sène Eumeu Sène sax déjà soxla na pour revenir ci làmb te bëri Tapha Tine na ko tax. mën na waaye mën na ko mën am na fekk loo xamante ne tamit ah. bu amee du ko bëgg. du ko bëgg Tapha Tine mën na bëriwaat Lac de Guiers numéro 2. Tapha Tine Gris Bordeaux tam combat la ku fi amul da ngaa mën a wax rek fukki yi nga lim juróom-ñett fàtte ñaar mais ñi fi lim ñëpp adversaire lañu su ko Tapha Tine mi nga xamante ne ku dul écurie ba mu dëkk day yow amul xarit amul doomu ndey ñëpp lay bëreel kon boo yaakaar naa ne kon ñu bàyyi la nga seetaan lamb ji ci yow kontaan leen ñaanal aussi site bi màgg màgg màgg ba doon télévision merci beaucoup jërëjëf père